voilà kon man la maître Serigne Diong avocat à la cour di avocat Modou Fall alias Boy Djiné euh, li may wax mooy verdict bi mën naa wax ne kontaan nañ si ni mu tëddee parce que tout simplement comme ni ma ko waxee woon jour ate bu njëkk ba booy jinne li liñ ko doon toppee nangu woon na ko assume woon na ko euh, musu ko weddi euh, te comme ni ma ko ñaane woon aussi bi ñu xoolee tey bi verdict bi wàccee benn atu kaso lañ wax ne moom lañ ko daan bu muy tëdd te boo ko xoolee bi mu fi nekkee ak léegi euh, mat na ëpp na at sax kon mun nañ jàpp ne atu kaso boobu ñu ko daan at bu mu tëdd ba pare la normalement kon mun nañ jàpp ne euh, décision bi satisfaire nañ satis am nañ ci satisfaction. voilà verdict bii mu am nag euh, du tax mu bàyyi ñu mu génn kaso parce que nekkul ni lool rek moo ko fi bàyyi woon ci kaso gi am na yeneen mbir yuñ koy toppee yoo xam ne aussi dañ ko ci teg loxo. tax na bokkoon donte tey tëdd na fii at bi nga xam ne moom lañ ko daan ci lii du tax mu génn kaso parce que am na yeneen mbir yoo xam ne dañ ko ciy topp te mbir yooyu dañ ko ci téye woon nag day desandi ci kaso gi ba ba ñu koy àtte ci mbir yooyu noonu may wax. di jërëjëf.